boo yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun sans limite TV votre site d'information fu waaye mën di nekk ci biir réew meeg bitim réew ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di wax dal leen jàmm ci sans limite TV tey nag ñu ngi fii nga xam ne moom mooy ci dëkk bu sell bi Touba Mbacké li waral li ni mel ki nga xam ne moom mooy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay moo fi ñëwoon tey jilee benn ponk la ci li ñu war a waxtaanee tey am mbégte lool dalal ki nga xam ne moom mooy docteur Arona Coumba Ndoffène Diouf CEO et fondu at groupe FAMAC président du parti politique alternance citoyenne ànd defar Sénégal ACAT kilifa gi ñu ngi lay nuy bu baax bàyyi la ak bu fii nga xam ne moom mooy sa kër di Sans Limites TV. waaw ñu ngi lay fay am mbégte lool dalal leen fii ci kër Boursine. Mhm. ci tubaa Mosquée di. di leen encourager. merci di leen remercier aussi. Mm-hmm. di leen xamal ne fii moom seen dalukaay la seen kër la. jërëjëf waaw. jërëjëf kilifa gi je pense que ni ma ko euh, présenté noonu la. noonu la jërëjëf alors la koy tàmbalee <coughs> tey jilee son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñëwaat na Touba ba ñu ko faleek léegi li nu mel je pense que am nga benn jàngat boo ciy def laata sax ñuy ñëw ci solo su bés bi tey. waaw euh, ñi ngi rafetlu lool ñëw président de la république euh, Bassirou Diomaye mhm. di ci am contenté te defe naa murit yu bëri tamit dinañ ci am mbégte ndax mhm. moom mooy le président de la république du Sénégal c'est le père de la nation mhm. moom la ñu dénk ci ndogal lu yàlla lépp loo xam ne mooy destiné Sénégal mhm. bon suñu amee honneur am visitam fii nga xam ne du benn yoon ci la deuxième fois muy ñëw ci ville sainte bi mhm. daje ak ki nga xam ne moom la ñu yaakaar tey ak ëllëg mu sëñ Muntaxa mhm. yaakaar naa ne loolu mbégte la ci ñun bon ñu ngi koy dalal di ci kontaan lool di aussi di ko ñaanal mission bi nga xam ne moom la ko yàlla dénk yàlla na ko réussir. allahumma amin jërëjëf kilifa gi alors euh, thème yi thème bi nga xam ne nag moom la ñu choisir euh, ci journée nationale de la bi mi mooy le rôle de reboisement dans la souveraineté alimentaire et développement économique nga yàgg am taxawaay ci li nga xam ne moom mooy réchauffement climatique thème bi ñu tànn jot na Sénégal xam exactement lu ko wëndu. waaw xam nga réchauffement climatique. Hmm. dafa nekk. Euh, benn point boo xam ne ñi nga xam ne sax ñoom ñoo ko faloon defoon ñoo ko créer woon ñoom dootuñu sax tudd turu réchauffement climatique seen réew mooy américain mhm. américain dañ jël réchauffement climatique génne ko ci seen constitution doo ko jàngale ñun bañ fay jàngale amuñu droit ci classe yi wax réchauffement climatique mhm. loolu nag li ko wund mooy réchauffement climatique dafa mel ni rek nga ne Euh, Mamor mbaay xees na wala Mamor Mbaye ñuul mhm. dafa mel ni rek nga ne euh, Touba la Sainte Touba dëkk et cetera dafa nekk loo xam ne dafa normal mhm. la terre s'est réchauffée bi àdduna bi biñ ko sàkkee àdduna bi bi muy ñëw xal la woon mhm. xal boobu moom mooy fay di fay ba joxe suuf si tey soo xoolee volcan yi nga xam ne dañuy génn ci ci ci ci ci suuf si volcan yi génn ci biti Euh, lave boobu mooy mooy euh, xal boobu nga xam ne moom la volcan am terre bi yëpp moom la amoon léegi euh, terre bi mi ngi am quatre milliards cinq cent million années ci dund mhm. loolu la am quatre milliards cinq cent millions d'années loolu la terre bi dund mhm. ba muy commencé xal boobu ci quatre milliards yi moo fay ba tey yi ñu am ay suuf am ay ay ay océan et cetera moo tax terre bi musul jóg ci réchauffement climatique xaal boo xam ne day fay moo tax américains bañ ko jàngee ba jàng ne mais réchauffement climatique wax ko mooy ndox géej gi am na ndox géej gi am na ndox moo tax ñu dindi ko ci seen jàngale mhm. waaye nag dafa am politique bu nekk ci ginnaaw mooy algor Gore biñ ko gañee ci élection moom après Clinton mhm. dafa am benn courant marxiste boo xam ne bi nga xamee ne euh, république euh, euh, union soviétique tas na mhm. courant marxiste yooyu communiste yooyu ñoo créer léegi yeneen courant environnement mhm. mooy écolo écolo mooy le courant écolo ñooñu nag la algor dem ci ñoom ànd ak ñoom ñu créer ay Cap 21 créer benn politique autour de la dynamique du réchauffement climatique on peut parler de réchauffement climatique ñoom li nga xam ne aujourd'hui moom lañ ciy défendre hmm. mooy émission de gaz carbonique émission de gaz carbonique soo xoolee tey jii ozone ozone la ozone benn couche la boo xam ne moo wër àdduna bi hmm. ca ca ca ca ca asamaan la nekk ozone boobu tey jii moo tax am na ay rayon rayon yoo xam ne ultraviolet yoo xam ne euh, euh, soleil bi dañ koy sànni ci suuf si su ozone boobu amul couche boobu de protection boobu su amul woon te jii kenn mënul dund ci suuf si nit hmm. mënu cee dund animal munu cee dund hmm. mais ozone boobu lan moo koy yàq mooy gaz carbonique gaz carbonique léegi soo defee carte ozone boobu hmm. fi nga xam ne bënn na ba nga xam ne rayon yi mun nañu egsi foofu mais du Afrique Allemagne la muy Europe États-Unis ak Chine ñoom la seen ozone bën loolu mooy lan mooy dëkk yooyu seen industrialisation mooy yàqu ozone bi mhm. mais Afrique lu ciy seen yoon léegi nag ñu bugg ko mondialiser ba nga xam ne ñun ñii amuñu problème réchauffement climatique ñu bugg ñu ko imposer par force génn ay fonds ne dañ koy jox fonds yooyu musuñu ko joxe mhm. donc ay nax kese la man musuma d'accord mhm. ci réchauffement climatique la d'ailleurs bi nga xam ne maa ngi conseiller le président Macky Sall muy dem euh, CAP 21 dama ko bind lettre ne ko man ànduma ci yow ngay dem CAP 21 ci ay réchauffement climatique mu ne ma noonoo fonds yi ñu fa waroon a jot man ne ko fonds yi doo leen ko jot mukk <laughs> est-ce que mus nga gis benn milliard boo xam ne dañ la ne ci fonds vert yi la jógee mm-hmm. fii si Sénégal buy jëriñ benn askan amul en plus soo xoolee par exemple soo demee Chine am na euh, ville yu bëri en Chine soo soo teelee yeewu dootoo mun a gis sax immeuble yi mm-hmm. ndax loolu réchauffement climatique pourquoi parce que seen industrie dafa dégager autant de émission euh, gaz carbonique ba nga xam ne même noy noyyi fi boobaa Chine hmm. dañuy imposer am na temps yoo xam ne dañuy imposer nga sol masque hmm. parce que seen air bi puretul loolu ñooñ industrialisation dañu bëri ay usines bëri lu ñuy émettre ci affaire courant euh, essence et cetera donc ñooñu ñoo am problème boobu. Mhm. mais demal Kolda nga xam ne euh, am na village yoo xam ne pour oto jaar fa peut-être un mois sur deux mois la ñuy gis oto boobu nga dem Banda Fassi nga xam ne oto sax du fa jaar. léegi ñoo bugg nag ñun comparer ñu. suñu dëkk yooyu ak dëkk ay Beijing. <laughs> c'est impossible c'est impossible ah mhm. c'est pas possible. moo tax réchauffement climatique. africains yi bokkuñu ci. Mhm. c'est pas leur guerre. waaw ñi nga xam ne développé nañu beneen galgal bu nekk ci réchauffement climatique tamit. mooy mooy. Mhm. ñoom dañu ne léegi bu ñu utiliser charbon. mooy charbon minier këriñ. këriñ këriñ bi këriñu xeer bi bu ñu ko utiliser ti mhm. bu ñu utiliser ti lenn loo xam ne day dégager gaz carboné mais ñoom ci loolu la ñu développé. Angleterre lan la développé ba def ay chemin de fer mais ci charbon les premières locomotives charbon moo leen moo leen moo leen moo leen ki <laughs> donc naka lañu bugg a ñoom. def seen ponts et def seen autoroute seen développement yëpp ci charbon. Hmm. ñun bëgg ñoo tere ñu utiliser charbon boobu pour développer mel ni ñoom. Hmm. donc xam nga ñu ngi ñuy daaneelaat. ñu ngi ñuy daaneel c'est vrai donc pense que réchauffement climatique moom amul léegi nag. Hmm. ci beneen point bi euh, jëmbat ay garab garab dafa bokk ci li nga xam ne ñun dafa bokk ci suñu dund. su am woon garab sur terre. du am émission co muy gaz carbonique gaz carbonique boobu moom mooy mélangé ak euh, euh, comment dirais-je l'azote ah ñu koy ñu koy ñu mooy mooy mélangé gaz carbonique su éclaté wu moom mooy mélangé avec euh, l'élément azote moom la ñuy noyyi suñ ko parce que ñu bëri dañu yaakaar ni ñun oxygène la ñuy noyyi déedéet oxygène 33 pour cent la ci air bi ñuy noyyi. très bien soixante quinze pour cent yi. Hmm. azote la. waaw léegi nag suñu noyee azote boobu bu gën a bëri azote boobu day décomposé wu ànd ak carbone bi ñu dégager ko en terme de gaz carbonique. Hmm. mais loolu lan mooñ ci ñuy dimbali mooy garab yi parce que garab yi ñun lu ñu ñoom lu ñu suñ jëlee euh, gaz carbonique boobu ñoom ci seen photosynthèse ci seen photosynthèse dañuy briser euh, élément wu carbone bi ak oxygène bi oxygène bi dem fële su ko defee ñoom dañuy garder carbone bi parce que si la dund ah day mm-hmm. dugg nekk matière organique léegi nag oxygène boobu la plante yi di dégager mm-hmm. ñun nag ñuy jël oxygène boobu di ko noyyi moo tax mënuñu ñàkk bañ a am ay garab loolu ci suñu survie la suñu mm-hmm. demoon ba garab amatul ci àdduna loolu mooy àdduna jeex na. àdduna bu tukki waaw bon am na yeneen développement yoo xam ne fa ñu jógee garab yeeg ni ñu bokkee ci. ci ñun suñu suñu symbiose ak yooyu yëpp loolu lu compliqué la xam naa beneen émission lay laaj. Mhm. ndax kuuru lëmm <laughs> mun na ko ci très important te lii la ñu war a waxtaanee ci réew mi bu ko defee nit ñi xam exactement solo si fàttaliwaat itam yéen ñi nga xam ne yéen ñi <laughs> door di dab docteur Arona Coumba Ndoffène Diouf la ñu euh, moom sax moom moo ñu dalal tey fi nga xam ne moo ci Touba président ñëw na def discours jot nga koo déglu. jot naa ko déglu. ban analyse nga ciy def. d'abord. nañu analyser le discours ah. du porte-parole du xalif général sëñ Bass xalifatul am mhm. muy sëñ Bass très sëñ Bass mhm. dafa dalal président avec beaucoup de diplomatie yar baa ngi ci mhm. honneur tamit cëru président bi gëdd bi jox na ko président teral na ko mhm. yóbbu nañ ko ci fi nga xam ne foofu la ñuy dalal buur yi nga xam ne dañu ñëw Touba mhm. donc jox nañ ko honneur yëpp waaye lan la wax président mhm. daf ko ne ñun ñun ñun bi ñu amee quatorze ans la participer quatorze ans à quatorze ans la ñu ñëw participer ci kër gu mag gii di suma voisin muy kër sëñ Touba bii résidentiel Cheikhul Khadim résidentiel Cheikhul Khadim temps boobu sax construire guñ ko Ndiouga Kébé commencé ko ko compté ñu participer ci reboisement wu garabu niim. Hmm. garabu niim waaw. c'était en quelle année. c'était en 1979 80. très bien. chaque année. Hmm. sëñ Abdou Lahad da daan def un programme de reboisement des niim soo xoolee soo jëlee Touba ba dem ba Touba Belel. Hmm. ak tout le village de Touba Belel. di fa fekk ay garabu niim. Mhm. loolu sëñ Abdou Lahad moo ko moo ko fi defoon. niim nag nekk euh, garab boo xam ne dafa bari njëriñ tamit. Mhm. ndax niim mun nga ci génne pâte dentifrice. niim mun nga ci génne ay diw diw yaram. niim mun nga ci génne garabu bopp buy metti niim mun nga ci gëri génne lu bari. Mhm. donc reboisement yooyu ci garab bu am solo sëñ Abdou fekk na ko mais bien avant sëñ Abdou sëñ bas wax na ko. Serigne Touba ñi mu assainiré Touba est-ce que tu sais hmm. <coughs> mooy la troisième ville la plus moderne du monde pourquoi. pourquoi dañu def euh, benn séminaire à Milan. Hmm. ñu jéem a seet structure u ville moderne yi yan ñoo ci répondre par rapport à la mondialisation la modernisation l'urbanisation ñu ne ville yi nga xam ne dañuy seen seen route day éme day converger. ah à un centre bien déterminé ñu ne ville yooyu ñoo war a gën a modèle mhm. parce que non seulement soo xoolee les services yu commencé di dégradé wu ba ñëw ci downtown ville bi ah, su fekkee ay avenue yu bëri dañu ñëw daje ci downtown boobu yooyu ñooy ville mhm. léegi nag ñu commencé ñoom tubaab yi wër ci àdduna bi yan ville yoo xam ne am na benn landmark mooy structure wala benn aménagement boo xam ne tali yëpp ci foofu la ñuy jëm mhm. ñu ne benn bi mooy Paris mooy kii Arc de Triomphe soo jëlee Arc de Triomphe toutes les avenues de Paris ah mhm. foofu la ñu converge très ñu ne bon mooy première ville mhm. am nga ban mooy ci tegu Boston Boston waaw soo gisee Boston structure circulaire la am c'est-à-dire les autoroutes sont circulaires et les avenues convergent au downtown de Boston ñu ne troisième ville bi ñu ne Touba. Touba dëkk <laughs> alors foofu nag moom faaw ñu taxaw fa tuuti ñu leeral bu ko defee ñiy seetaan mën a xam exactement pourquoi le choix de Touba. pourquoi lan le de Touba. dina ñëw sax ci foofu ci président Bassirou maa ngi juum baal ma ñu ñëw ci lu tax ñu ne Touba mooy la troisième ville ci li nga jot a tudd. noonu parce que urbanisation. Hmm. sooy sooy def par exemple. li ñuy wax la da ngay facilité ce qu'on appelle la mobilité humaine euh, mm. urbaine mm-hmm. gis nga par exemple pour nga jël benn métro ñëw directement arc de triomphe mooy gën a gaaw par exemple su amul woon ay avenue yu ñëw converger ci arc de triomphe bi da ngay ay ruq-ruq ngay dugg ba si foofu mm-hmm. mais ni ñu deferee Paris tey jii soo jëlee lii lii ñu métro boo jël wala ligne bis boo jël wala yow mii dawal boo jël soo ñëwee ci avenue principal mun nga dem rek euh, kii bi mhm. loolu mooy Touba. Mhm. Touba soo jógee Mbacké yaa ngi ñëw ci jumaa ji nga jóge Linguère yaa ngi ñëw ci jumaa bi Saalum soo ko jógee yaa ngi ci jumaa ji Dakar soo fa jógee tamit yaa ngi ñëw ci jumaa ji donc la la structure architecturale urbanistique de Touba ni nga xamee ne nañu euh, la sëñ bi santaane ñu def fi jumaa ji ak ni nga xamee ne sëñ Moustapha bi amoon vision vision tracer les avenues yëpp di daje ci Touba moo waral tamit la mobilité urbaine yomb ci Touba. Mhm. tey jii su fekkoon par exemple amuñu avenue boo xam ne da ngay dakaar Dakar jël vingt huit egsi si kii bi da def ay ruqi-ruq. Mhm. di daw ay ruqi-ruq comme Dakar rek. Mhm. Dakar sooy dem Sandaga mun nga jaare ko Tilène. wëree ko euh, Faidherbe mhm. mun nga jaar ci corniche bi tamit wëree ko soog a dugg ci centre de Dakar mhm. donc dafa bokk ci euh, ni nga xam ne moom la ñu jànge ne euh, dëkk noonu lañ ko war a tabaxee waaw mhm. boobu nag àndul ak kese niñ ko tra tabaxee de façon urbanistique déedéet architecture bi c'est bien la ville et les les les routes sont circulaires et les avenues tous convergent à la grande mosquée. Mhm. yemul ci boobu rek. Mhm. dafa bokk sax ci archi assainissement pour prévoir les inondations. très bien soo demee par exemple France sooy dox ci les grandes avenues fële seen caniveau yi nekk. Mhm. seen France amul amul fenn foo xam ne di nga fa dox ci kaw tali te si suuf métro nekk fa wala caniveau nekk fa amul. en France waaw te loolu. Serigne Touba prévoir na ko bi muy samp dëkk bi. ci mhm. mille huit cent et quelque. prévoir na ko tamit prévoir na ko. Mhm. loolu moo waral mbedd yu yaatu Touba yi. Mhm. c'est tous des aveugles. kër yi yaatu <laughs> sëñ bi ñu ñëwaat tuuti ci ci discours bi. léegi alors. donc sëñ bi euh, sëñ Bass rappelé ne ne reboisement yàgg na sëñ sëñ Abdou Lahad bi mu demee sëñ Saliou. bi nga xam ne mooy boroom xel ko mhm. def na fi reboisement moom musul jóg sax ci sax saxal garab musu coo jóg c'est-à-dire chaque semaine chaque mois mhm. dina santaane dem leen fële ngeen saxal fa garab mhm. dem neen ngeen gor garab yi pour ay ay tool et cetera bi mu demee sëñ Cheikh Sidi Matar santaane na fi plusieurs fois bàyyi fall ñu def euh, ay ay euh, ay euh, ay reboisement bu yàggul nii rek ça fait pas trois semaines sëñ Mountakha mhm. nee na nañu reboiser les trois corniches de Touba. Mhm. yàggul ça fait pas trois semaines. alors tey donc su président ñëwee moom la ko sëñ Bass wax ne xanaa da ñu ciy soññ rek. Mhm. te soññaate moom diggante jullit ak jullit da ngeen war a waaye reboisement mosul jóg Touba. wallaay loolu nag euh, ñu koy. Euh, ki ñu ko baaxee mooy ki nga xam ne mooy Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim. Cheikhul Khadim soo xoolee li ko yàlla may. yi fi mawdihi fi mawdihi wa baladi mu kardiman bi am ni safa xaladi allahu doy na lépp mhm. yàlla dafa teral Serigne Touba fi mawdihi fii ci dëkkam bi di Touba wa baladi ak son peuple mhm. muy réewam di la pays mhm. xoolal Serigne Touba panafricanisme boobu c'est-à-dire nationalisme soo ko doon wax kan moo war a ëpp Serigne Touba nationali nekk nationaliste nee na yàlla daf ko teral bi muy ñaan yàlla bi muy wax ijxar lu jooxi ilaa xaw mi naa wal na yow ma jamxel xalqi raana si son peuple la wax mm. dafa ne yow yàlla li may may yépp retombé yi yi yi wadd yëpp ci bi ma demee géej gi nattu yi fa may yàlla loo ma ci fay jox ko suma peuple mm-hmm. waaw xaw mi daf mm-hmm. ko suma peuple mm-hmm. teg ci nag ba ko yàlla mayee teraanga boobu dafa ne karamel yi fi mawdihi wa baladi mhm. jëlal teraanga boobu yépp nga sottil ma ko Touba sottil ma ko Sénégal. ak gore <laughs> jërëjëf kilifa ñu ñu ñu ñu ñëw ci euh, discours bi nga xam ne njiitu réew mi moom itam daal dina koy yëkkati tey euh, politiquement wala sax euh, niñ ko mën a analyser ba Sénégalais yi lam ca jot a codé nga décoder leen ko ñu mën a comprendre exactement fu président di waxee. waaw mooy mooy fi ñu tàmbalee rek. Hmm. garab mënuñoo séparer wu ak garab dañu soxla garab donc am am am am un message venant du président de la république bu santaane pour ñu def garab loolu suñu survie la. c'est-à-dire hmm. président def ñu soññaat xamalaat nañu ne garab yi mun a ñàkk ci suñu dund. Hmm. du rek liñ ciy jëfandikoo. mais garab yi li nga xam ne moom lay dégager muy oxygène boobu ci guddi gi parce que garab gi guddi gi yëpp day day ñun. li ñuy noyyi nii. Mhm. garab yi moom lay dundee ci guddi ci suba si. suñu suñuy nelaw garab bi mu ngi ñuy jox oxygène ci guddi gi. Mhm. waaw noonu la noonu noonu la photosynthèse deme parce que naaj bi lay soxla pour dég pour emmagasiner pour pour lekk euh, CO2 bi muy euh, carbone dioxyde bi. Mhm. léegi nag guddi gi ci la ñuy jox oxygène. Mhm. mais koo xam ne da lay jox oxygène. Mhm. yow soo sañoon sa buntu kër day bari garab. Mhm. donc message boobu lañu ñu président indil. léegi nag li nga xam ne mooy innovation bi nekkatuñu rek di samp n'importe garab. dafa garabu mango bi. même soo ko màggee mun na la économiquement indil dara. donc euh, loolu foofu message bu am njëriñ la. boo xam ne sénégalais yi ku ci nekk xamal ne. Euh, su président waxu la ko woon sax lu la war la mhm. mais rawatina moom mi nga xam ne mooy chef de l'État di père de la nation ñu jox ko toutes les institutions le gardien de tout toutes nos sécurités et tout mhm. notre prospérité ñu dénk ko ko su ñëwee di ñu rappeler ci ay filières yoo xam ne suñu jëriñ la mhm. point de vue santé point de vue économique et cetera du ñu def lu dul remercier ko je pense que c'est une très bonne action. Mhm. très bien alors bëggoon nañu sax mais euh, je pense que leeral nga ko mooy le choix de Touba lu tax mu taamu ko et tout ça naam ñu bari ñu ngi wax naan ay mbóot manga ca euh, ci ci dëkk bile euh, kilifa gi. xam nga je vais te dire mhm. expliquer une chose. Mhm. na ko ñëpp nangu. mooy. xam nga bu yàggul rek après après quatre cents années. Mmh. le Vatican reconnaît que les musulmans son plus nombreux. que les chrétiens. mille quatre cents années après. nañu reconnaître aussi que Touba c'est la deuxième population du Sénégal. Mhm. nañ ko reconnaître. oui Touba après le Sénégal dans dans les statistiques dans les comment dirais-je kii yi ñuy def ah pour pour recenser les en des recensements Touba devient la deuxième ville la plus populaire. Mhm. donc yow soo amee. Euh, un impact boo war a def ci population bi soo dëkkee Dakar fa nga ko war a mun a gën a defee parce que Dakar lépp c'est habité par des logements mhm. daanaka amatuñu espace bu ñu fay def ay ay ay ay garab mhm. ah talatuñ ko sax na ndax dëkk bu metti li nga war a mun a def mooy ñëw ci dëkk bu mel ni Touba prévoir fa un reboisement boo xam ne yaa ngi impacter la moitié de la population. Mhm. c'est-à-dire nag lenn lenn moo moo moo injuste. ci ni ñu téye Touba. Mhm. tous les gouvernements laay wax y inclut gouvernement euh, Bassirou euh, le président Bassirou te je pense que moom war na ci réfléchir pour indi ci ay solution mhm. la ville qu'on dit que c'est la deuxième population war nañu équilibrer le budget national. ba nga xam ne Touba dina ci gis boppam. mënuma mhm. d'accord Dakar ñuy am cinquante quatre milliards la ville de Dakar muy la plus grande population du Sénégal mais ka ca tegu di Touba di la deuxième ville la plus peuplée di am quatre milliards. Mhm. <laughs> c'est injuste c'est pas équilibré c'est des choses yoo xam ne ñu ngi koy sas le président Bassirou Diomaye Faye. mu mhm. rectifier ko. d'accord c'est des choses à rectifier. ñu xool aussi en termes d'industrialisation. la deuxième ville mm. du Sénégal la plus peuplée mais soo fa indil industrialisation xale yi suñu suñu màggee fu ñu jëm hmm. ñun am nañu au moins xalif boo xam ne am na vision indi e, éducation hmm. il y a des écoles primaires il des écoles d'excellence des lycées mu ñëw tegal ñu ci université xale yooyu suñu jàngee ba pare fan nañ jëm hmm. <laughs> donc c'est le devoir et l'obligation mm-hmm. du président de la République de penser à industrialiser la ville de Touba. Mm sinon xale yi dinañ def ci loo xam ne wala dem ci foo xam ne déjà et puis en plus euh, investissement bi sëriñ bi def ci euh, université bi su paree xale yooyu fan lañu nar a jànge mm-hmm. donc na def ay effort quand même mm pour industrialiser ce pays indi fi tamit au niveau administratif ah ay ay euh, ay ay département yoo xam ne xale yi mun nañ fa dem di liggéey. d'accord waaw décentralisation war nañ ko def te su ñuy def décentralisation nañ ko def au prorata des populations. Mhm. d' accord bu moo am benn favorité. d' accord jërëjëf loolu c'est un message que loolu. d' accord jërëjëf kilifa gi alors li ñu def ci waxtu bariwul ñu def transition petit peu ñëw ci euh, gouvernement bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba ñu tàmbalee ak léegi euh, ñii ñi ngi naan bilan ñeneen ñi di ko natt ci bañ toogee ak léegi naam euh, docteur Cheikh Dieng dem na mi nga xam ne moom moo jiite woon ONAS euh, noo gisee gouvernement bi le xam nga suñu nee en cent jours mun nañu natt gouvernement hmm. ñi koy wax sax suñu jàngoon géopolitique mondiale dinañ xam ne def nañu erreur pourquoi hmm. dëkk yi wax ne cent jours ñu joxe bilan dëkk yoo xam ne depuis deux cents ans ñu ngi fi deux cents années hmm. def nañu leur département man am naa ay étudiants yoo xam man maa leen jàngal. ba ñu am mhm. master aux États-Unis ci jamono Bush lañ leen jëloon ñu nekk White House. Mhm. nekk fa ay conseillers en environnement ñi conseiller en mine et cetera kenn ki Ryan William la tudd soo googalee turam di nga ko gis White House la nekkoon su ma étudiant la maa ko jàngal ba mu am master mais kooku Bush. Mhm. Clinton ba ci Obama moom moo démissionné kenn laalu ko. parce que ñoom seen système. dañ ko defar ba nga xam ne président su ñëwee du sax ñemee dindi benn directeur bu fa nekkoon. Mhm. pourquoi parce que tamit li nga xam ne moom la ñu wa doon doon xaar ci ñii. Mhm. mooy euh, appel d'offre yi xam nga soo defoon appel doof tey tey jii. Mhm. ci benn direction bu mel ni Sénélec. wala bu mel ni direction bu mel ni ONAS. nga def fa appel d'offre. président bi ñëw kooku du ko laal. su fekkee def na ay ay loolu moo tax appel d'offre baax. Mhm. appel fu waxuñu ko rek simplement pour la compétence l'intelligence dañ ko wax pour avoir un état solide. nga xam ne président buy ñëwati. Mhm. ñi mu fi fekk ñooy ñi gën ñi mën ñi gën a xam ci département bañ leen teg. Mhm. kenn du leen laal. loolu moo xew Amérique. moo xew France si ci lu tuuti. mais soo demee en Allemagne moo fa xew. Mhm. soo demee euh, dëkk yu bëri yu développé yu bëri loolu moo fa xew. Mhm. ñooñu mun nga leen laaj su ñu ñëwee toog nga xam ne machine euh, machine bi démarré na depuis deux cents ans. Mhm. ah lépp ñu dox te ñi gën a xariñ ci réew mi ñoo nekk ci bopp département yi. kooku président bi su ñëwee cent jours dinañ ko laaj loo fi def. Sénégal <laughs> fii rien n'est fait. tout est à faire. dara defuñu ko. Mhm. président bu ñëw. que gën a xariñ ci département su ko folle euh, day day ñëw fekk ko fa xamul ne kii def na ay résultat mhm. xamul ne kii deful ay résultats ñu jël folli ko teg fa koo xam ne kan quatre vingt pour cent ci président Diomaye fal quatre vingt pour cent yi musu ñoo def état. musu mhm. ñoo nekk ci ay directeurs musu ñoo jiite. kuréel boo xam ne au moins dañ fay am ay décisions. Mm. yu impacter le pays. mais ñooñu bees nga teg leen ci ay structures yu bees yoo xam ne lan lañ fay def. di leen mm. jàng. <laughs> ñaata at la ñuy jàng. c'est compliqué tout un la ñuy jàng. Mm-hmm. waaw moo tax appel d'offre baax loolu moo tax ñu ñuy sant président yi ñu def appel doo léegi nag le président Diomaye. Mm. deux mille cent quatre-vingts décrets mun na ko bind pour nommer ay nit. ñuy am ay place mhm. soo buggee satisfaire euh, une clientèle politique su ko neexoon tey jii toute sa coalition Diomaye président deux cent et cinquante huit membre lañu fa deux cent cinquante huit membres mhm. toute sa coalition su ko neexoon tey jii casé leen te du leen casé ay directeur du leen casé ay secrétaire général du leen casé ay ay ay ay kii mhm. am na yooyu fonction yooyu am na ci état bi nga jël fonction yooyu jox ko la classe politique mais nga jël fonction yi nga xam ne moo tax Sénégal di dox nga jox ko ñi nga xam ne ñoo fa gën a xare quand même mhm. doo jël ñoo xam ne ay stagiaires lañu doo jël ñoo xam ne mu musuñoo toog ci pour kii yooyu mais naka la Sénégal bëgg a avancer avec dina xaw a compliqué quand même. mais dafa am ko ñu jël koo xam ne moom yàgg na ci politique depuis parti démocratique sénégalais di Cheikh Dieng. alors la mu def nag ba ñu euh, daal di koy dàq euh, révélation yi bari na. Euh, ndax loolu c'est problème interne. interne waaw ci ñoom. Mhm. man awma ci benn commentaire bu ma ci def. oui honnêtement. Mhm. mais li ma la bëgg a wax nii. mais gisoon gaaw na quand même. <coughs> li ma la bëgg wax nii c'est de façon <coughs> de façon générale. Mhm. war nañu ñun président Diomaye su ko neexee fii ak la fin de du mois. de de la première année de son mandat la première année de son mandat. de cinq gis nga déwén en deux vingt cinq su ko neexee def appel d'offre mhm. jël sénégalais yi gën a xare xam nga le président euh, le président Ablaye Wade. xam nga mhm. ban chance la amoon. oui le président Ablaye Wade bi muy ñëw au pouvoir il est accompagné par qui par nit yoo xam ne dañu def Senghor et situa ñii ñi ngi fi woon avant indépendance ñii ils ont fait Abdou Diouf et cetera ba nga xam ne président Ablaye Wade bi mu ñëwee ànd ak ñoom. Euh, Dansokho ànd ak ñoom Lani Savané ànd ak ñoom Moustapha Niass ñooñu ñëpp ñu yàggoon ci état la def deux deux moo tax président Abdoulaye Wade amul woon ce problème d' mhm. de gestion de l' état. Macky Sall tamit chance boobu la amoon Macky Sall est arrivé au pouvoir avec une coalition bu regroupé kan Tanor. y avait Djiboka Moustapha Niass y avait ñoo xam ne état Sénégal ñoom ñoo ko créé mhm. chance boobu la Macky Sall am mhm. mais président Bassirou Diomaye Faye amul chance boobu mhm. il est venu les mains nues les mains nues amul benn intelligence état boo xam ne topp na ko boo xam ne participer woon nañu ci régime euh, précédent yi euh, bokk ci ay structure de régime bokk ci ay département de régime créer ces régimes là mhm. chance boobu la amul léegi nag loolu naka la koy rectifier benn l'année prochaine mhm. mu woote appel d'offre sénégalais yi gën a xariñ c'est des sénégalais que ñu bokk Pastef que ñu bokk Benno Bokk Yaakaar que ñu bokk feneen mhm. c'est des sénégalais qui Sénégal soo defoon appel d'offre ba gis ñi gën a xarañ si Sénégal Mais voilà l'intelligence qui mmh. peut développer le Sénégal. Mmh. Mais mhm. ce n'est pas la gens-là là, mhm. nga je ne di si la fin du, du mois, déjà, commencé à avoir Cheikh Bob, c'est un problème. Il mhm. ne a un problème, mais c'est une expérience qui a été le problème. Et lors appel d'offres, d'effacer toutes ces éventualités. Donc, nous avons d'ici peut-être euh, satisfaire na sa clientèle politique. Mhm. na ko continuer satisfaire. mais un an après nga dugg ci développer le Sénégal. Mhm. développement c'est pas de la théorie. Oui. la preuve bind nañu le livre sol le solution. bind nañ ko. Mhm. wax nañu projet dix ans les Sénégal mais bi ñu toogee lan la ñu wax c'est une autre réalité développement dafa metti donc il faut nga am intelligence. intelligent boobu nag japonais yi yoruñu ko malien yi yoruñu ko burkinabé yi yoruñu ko c'est des sénégalais ñoo ko yor ñu ngi ci dëkk bi na mhm. leen woo na woo sénégalais yooyu ñu jàppale ko ñu développer Sénégal mhm. parce que ñoo ñëpp seen ambition moom su échoué c'est tout le Sénégal qui qui mooy échoué mhm. donc c'est son devoir sans complexe d'appeler des sénégalais ce sont pas des maliens ce sont pas des gambiens ce sont pas des burkinabés c'est des sénégalais yu am cër ci dëkk bi am fi wàllu tamit yàlla may leen xam-xam. Mhm. mais ñooñu soo buggee développer sans ñoom da ngay dem à l'aventure. Mhm. dafay compliqué donc je je je demande. Mhm. au président ba kii euh, euh, basiru Diomaye mu def un appel à l'intelligence sénégalaise sénégalaise qui existe. d'accord jërëjëf kilifa gi dernière question bi ma lay laaj euh, su naataangoo yu leeral sax ñoom ñoo ko daal di bind. kàddu nga xam ne Abbé Latyr daal dina ko yëkkati. Euh, yëg nga ko wala. yëg naa ko liir naa ko tamit. Ah. oui dégg naa Sonko li mu wax. Mm. le premier ministre Sonko. dégg naa tamit euh, li laabe liir naa tamit li laabe bi. Mm-hmm. Mm-hmm. su ma euh, xalaat ci loolu le premier ministre Sonko a parfaitement raison. Mm. gis nga li xew ay français. ñuy jël ay ay musulman ay jigéen musulman yoo xam ne muuru la ñu xam depuis seen naissance. ñuy ñëw ba école ñu leen di summi. wala di leen wax am leen droit euh, dugg ci école bi amu leen droit jànge ci école boobu loolu warul xew Sénégal donc je suis en phase avec le premier ministre je l'encourage ci loolu mhm. te aussi je l'encourage que ci yeneen secteur yëpp mu am une discrimination sociale mhm. une discrimination raciale mhm. une discrimination ethnique confrérique religieuse Sénégal taxaw ci ndax suñu constitution bindul ne le sénégalais am na droit war a ñëw ci jàng benn école nga ne ko parce que da ngay muuru musulman mhm. parce que jullit nga mhm. waroo dugg ci école boobu loolu warul warul am Sénégal mhm. donc je suis en phase avec le premier ministre Sonko d'accord quatorze ans ça vous rappelle quelque chose quatorze ans oui Sëñ Tuubaa dafa bind benn quatorze ans de man bi ma amee quatorze ans pour la construction de la résidence Cheikhoul Khadim la construction oui alors 14 ans c'est la euh, constitution fi la ñu fekk. oui mais bien avant ça Kër Sëñ Bassirou la woon. mu mm-hmm. joxe ko pour ñu construire ko. Mm-hmm. c'est-à-dire le euh, kii sëñ Abdou Lahad dans sa vision de développer sa vision architecturale sa vision sëñ Abdou Lahad da doon gis loo xam ne ñëwagul woon i la avait prévu tey fii yi dal def ko kër boo xam ne c'est la maison des hôtes. kilifa yu mag yi suñu ñëwee bu njëkk ba kilifa yu mag yi suñu ñëwoon xam nga fan la leen di dala mm. këram <laughs> këram la leen doon dala ak nit yeeg taalibe yeeg daanu yeeg yu demee noonu mu ne ñii war nañ leen séparer seen Basiru joxe këram ñu tabax ci kër gi mm-hmm. mais bi nga nee quatorze ans mm. dafa ma fàttaliku man suma quatorze ans bi ñu koy am jete au lycée Blaise Diagne ñu créer le daïra Mouride à Blaise Diagne affilié ko ci daayira étudiant mhm. man membre fondateur laa ci daayira étudiant biñ ci duggee boobu sëñ Abdou Lahad moo ñu moo doon suñu parrain <laughs> moo doon suñu guide dañ ci dugg mu njëkk ñoo jàngal lan ne ku ku koo xam ne ferul ijji da koy ferul ijji mhm. donc ñu jàng fer ijji parce que booy dakaar lañu woon booy town xam <laughs> léegi ñu ñëw ñu fer ijji ñu fer ijji ba pare mu ne nañ ñu dalal kun ma mhm. ñu jóge ci kunkaati man mu dalal ñu tësow di sixaar mhm. ñu jóge ci tësow di sixaar mu dalal ñu nax jo kunkaati man kunkaati man mhm. dañ ko waroon bind en français wala en wolof di ko jàngal noo noo noo noo noo noo noo nos euh, man li doroy wal bu saatanal xastan wa tax loolu ji la yaamu taxal laa tuksiril shakwa fa kun mu tajallidan atatazuna anaka mun xam hmm. dafa ne kun dee leen nekk Sëñ Tuubaa mooy wax de c'est un message aux jeunes kun dee leen nekk kaati mën di muñ loo leen di muñ li duru ñeel seen lor wal batsu ak seen ak seen ak seen wonsu wal busaa ak seen wonsu wonsu mooy les passions mm-hmm. xam nga lan mooy passion mm. mooy lii yëbbu xale yi géej <laughs> nee na kun dee leen di muñ wansu yooyu buñ leen yóbbaale jërëjëf kilifa gi ñu koy gërëm bu baax doctor Arona Coumba Ndoffène Diouf tey nag moom moo ñu dalal euh, fii nga xam ne moom mooy ci résidence bi la noonu laa ko mën a tuddee ndax nag euh, euh, kilifa gu mag la ko daal di duppee di Buur Sine maa ngi koy wax sànq xam naa ne suñu prochain entretien prochain entretien ci loolu la ñuy waxtaanee diggante Serigne di Khadim Rassoul ak Buur Sine naam xam naa ni maam moo du ko nangu ñu koy gërëm bu baax docteur Arona moom mi nga xam ne moom moo jiite CEO et at groupe FAMAC président du parti politique alternative euh, citoyenne ànd defar Sénégal ñu koy gërëm bu baax ci ni mu ñu ko nanguloo itam ginnaaw visite bi nga xam ne njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar fay amal na ko tey ci dëkk bu sell bi lee gërëm bu baax itam Assane Graphique merci aussi à Babacar Ted euh, Farimar maa ngi lay gërëm bu baax ci ni nga ma suggéré yenn questions yi gërëm bu baax itam El Hadj ak euh, mbooleem ñi nga xam ne ñoo ci jàpp ba bile émission daal di am jox leen rendez-vous kanam incha allah